malgré que pandémie la mais indi na jox na opportunité des politiciens effectivement à se retrouver ah, ah, à se retrouver ah ci la Macky Sall profité ndax Idy quoi. <laughs> n'importe quoi ah pour yow daf ko nax. oui <laughs> da ngay fontu rek waaw. waaw Macky dafa nax grand bi. ma gum jëm ngay naan ko nax. <laughs> ci affaire bi. donc yooyu la xam nga <laughs> mais man en fait en observant bi bi pandémie bi amee puisque je dama amoon liggéey bu bëri bu ma doon def dans toutes les prisons du Sénégal bien avant sama question mooy en fait comment ces gens-là arriveraient à gérer la transmission en milieu carcéral naka lañ koy gérer c'est pourquoi quand même je tiens véritablement à féliciter Euh, bokkande le directeur de l'administration pénitentiaire parce que normalement ak ni ñu waxee pandémie bi ak ni muy transmettre ak promiscuité bi nekk mm-hmm. kaso ils ont quand même fait mm-hmm. un excellent travail en termes de gestion de cette affaire ça me mm-hmm. permet de parler également de la liberté d'expression même si on n'est pas d'accord avec des insultes ak ci ku mu munti jëm aujourd'hui ah, tey tey Assane sonn na trop kaso tànkam mu ngi waaj a dagg il faut que Assane Diouf soit libéré loolu man malal tala almaami tala man mu man malal maa koy ñaan solennellement maa koy ñaan ah ñeme naa ko maa koy ñaan Macky Sall ñu taxaw ci situation Assane Diouf ñu bàyyi ko mu ñibbi këram parce que il est fatigué il y beaucoup d'organisations qui font un travail de excellent ñu ngi koy def nit ñaa ngi ci taxaw la société civile ñoom Karim ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ciy taxaw ñoom Tunkara tout le monde na man dama ko bëgg a ñaan suba bu ma yeewoo. Hmm. dégg rajo wala télé ñu ne bàyyi nañu Assane Diouf parce que Assane Diouf est très très malade di wax ni aussi que tey situation bi nekk ci yi en termes de promiscuité hmm.